Non, non, non. Non. Eh, cher, cher, cher, cher. bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg yeah non bàyyi leen. yeah Sénégal ah, man la Assane Diouf encore xam nga ma ngi dem live direct xam nga waa digi yi ñoo ñëwaat sama kër xam nga nee par force xam nga jox leen ma ko sama wax naa ak samay avocat wax naa ak ñëpp.

yee dama am ay droit sooda ba yee yee convocation dañ la koy jox wax la heure nga dem wuy yee xam nga grand demal toogi demal toog yee non non non non non non non non non non waxal léegi non non non non non non dajji leen non non non leen Arby.